nekk noonu it bul nekk di baj baji na nga toog benn bërëb téye sa bopp yar sa bopp yar sa bu li nga xam ne bu dee ci néeg wala bërëb bu kenn nit koo xam ni foo xam dëkkoo fa bul jéem a xam la ne ca bërëb ba mooy jéem a gëstu bërëb ne ngay xool li ci rondal bi wala liñ denc wala liñ nëbb loolu leen bu si yoon nekk wakul la dal majlisi saakinal jasa na sa yaram dal nga ànd ak dal wa lazimi samta te nanga nga noppi li fekk wax amul njariñ bu wax amee njariñ nga doog a wax su fekkee nag yàlla da nattoo nit kuy dal sa kaw di la wax lu ñaaw moom suñu tubaab di wax ne ba wasbir ala sabbi wala tujib axat loolu mooy li gën a jafewoon mu di dëgg-dëgg moo mën moo mën a moo mën a jëfandikoo mooy lu la wax ci lu ñaaw neen na ko muñ jàpp ne ñoom keneen la ñu wax waaye waxuñu ak yow loolu mag ñi àndoon suñu tubaab ñoom joxe nañ ci misaal moo xam ni dootu amati ci kaw suuf xam ngeen sëñ tuwa murid gi léegi la yomb waaye metti woon na naqari woon na itam sëñ mat lamin job daga nettali na jamono joo xam ni mboolem murit yi kajoor ak njàmbur dañoo xëy suba dàqe leen ci bërëb yi nekkoon lakk seeni kër seen lañ amoon ci ay am mbay ak alal lu ci bari ñu nangu waaye bañ demee fu sëñ tuwaa digalu leen lu may ngeen muñ te xam ne yéen saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine te lañ dajoon dajagu leen ko ngeen toog fii ci Tuubaa sëñ Basiiru teg na ci ne sëñ bi sax yëmut ci loolu dafa dajaa na leen képp koo xam ne adduna kese la wor adduna kese la yitteel seetal feneen taman nga bàyyi ma képp koo xam ne àllaaxira kese la yitteel muy aljana jee kese nga dem te bàyyi ma koo xam ne yàlla kese moo la ñor nga doog a toog murit yëpp maasé na ko doon yàlla rek lu ñor mësu noo nangoo ñoo nangoo tàqali moom